revue de la presse, la revue de la presse sur Sud FM. de la presse sur Sud FM, écoutez la différence. dal leen ak jàmm mbirum Ousmane Sonko moo gën a fës ci yéen kaay génn tey jii nii fi mu toll nii Macky Sall rek moo yor caabi su ko defee jàmm daal di leen siwaat kàddu yooyu nag ki ko yëkkati moom moo nekk directrice de l' du genre et de la femme Fatou Sow Sarr démb moom moo nekkoon ganuk El Hadji Baye ci émission objection nee na kat waxtu wi ñu toll nii kaddu njiitu réew Macky Sall moom am na solo lool waaye tamit ñu ànd ak Ousmane Sonko nañ bañ pression kii di àttekat bi ba tey lu jëm ci mbiru Ousmane Sonko yéen kat bi su quotidien di fësal ne Ousmane Sonko moom dañ ko def sous contrôle judiciaire loolu sax moo gën a fët ci xëtam mu njëkk suñu naataangooy samp ab laaj ndax kat ci mbiru Ousmane Sonko loolu nag xel mun na koo jàpp ndaxte kat ko ci weewu nag ne am na ay waxtaan yoo xam ne amoon na démb tiwulool sax la ñuy des ak tamit juróomi garde corps Ousmane Sonko yi nga xam ne kat bàyyi nañ bi nga xam ne juge bi nag moo ko décerné woon kii di Ousmane Sonko yéeni kàddu yi Les di fësal ne nekkul sax ñaar nit waaye juróom benn nit la ñu bàyyi ñooñu nag bokk na ci juróomi garde corps yi Ousmane Sonko ak tamit kenn koo xam ne caméraman la ci jot na TV décision bi ne mel nag procureur Serigne Bassirou Gueye moom moo ko jël ginnaaw bi nga xamee ne kat kat moom li koy toppee ba léegi moom moo jëm wàllu mandat d'amener bi nga xam ne nag juge Samba ko ko yónnee moo tax sax fi mu toll nii loolu moom génnagul moom sax tey jii war naa dem uy ji Macky Sall nag fi mu toll nii nag di yolomal mbir mi loolu mu gën a fas ci yéene kaay bi di laas njiitu réew Macky Sall moom wax procureur bi nag mu teggi loxoom ci mbirum Ousmane Sonko loolu nag jëm ci mbirum trouble à l'ordre public ak tamit manifestation non autorisée waaye nag lu jëm ci mbirum viol bi moom ba léegi rek Macky Sall moom wax ko ci dara njiitu réew Macky Sall tamit yëkkati na ay kàddu jëm ci ñi nga xam ne kat nga doon yàq yëfu jàmbur yi moom sax dafa actionné brigade su ko defee ñu xàmmee ñooñu jàppale daal leen nag tëj ci kaso bi kàddu yooyu mu ngi ko rotal bi mu seqee waxtaan ak ndawul xalif généraux yi nekk fi ci biir Sénégal yëpp Ousmane Sonko nag moom dañu nañ garde à bi loolu mu gën a fës yéeni kaab di réew mi quotidien suñu naataango yi di fësal ne waaye ki jiite parti bi di Pastef ba léegi ñu ngi koy topp ci li nga xam ne kat moom moo jëm nag ci wàllu viol ginnaaw ndawul xalif généraux yi am na ñoo xam ne kat yéen a yàbb ci wàllu woowu ñooñu ñu jàpp na ci cër ne war na ko cee mën a def yéen i kat bi libération dafa def taxaw seetlu ci bàyyi gi Mamadou Seck bàyyi dossier Ousmane Sonko libération yemul foofu nee na kat am na ñetti mbir yoo xam ne xew na ci ñetti fan ci weeru mars ci mbirum Ousmane Sonko bi ci njëkk mooy kii di Ousmane Sonko ginnaaw bi nga xam ne procureur bi joxoon na ordre nag teg loxo kii di Ousmane Sonko ñetteel bi juge bu huitième cabinet bi moom dafa inculpé woon kii di Ndeye Khady Ndiaye waaye ne moom mooy jëkkëram laataa nag mu jël dossier bi jébbal ko ki nga xam ne kat moom moo nekk procureur bi ba tey lu des ci mbirum Ousmane Sonko yéen kaay bii di critique di fas na tey ji boo defoon ndànk Sénégal dina tànk jir moo tax sax dëkk bi nekk ay char de combat li tam la yéen i de la tribune di ragal suñu naataango yi di fasal ne am na sax koo xam ne ñàkk na bakkanam nag jaww bi samedi ba la ñu génn opposition bi nag bëgg amal dox ñaxtu ñetti fan doore ko nag tey jii nii moo tax ministre bi ñu dénk wàllu njàng mi ak tamit wàllu formation professionnelle moom dakkal ku tey jii juróom-ñetti fan ci weeru mars ba fukki fan ak ñett ci weeru mars ba tey bi ñu nekk li mel nag daam Diop Amadou Tall dañ koo jël ngir rek fexe nag ba ndongo yi ak jàngkat yi ba ñu am ay jafe-jafe ci wàllu fët fët bi nga xam ne ko nemmeeku sargal jigéenu adduna bi yëpp waaye nag ñaareel yoon a ngi nii amul benn xumbati boo xam ne nemmeeku nañ ko loolu nag wàllu mbaas mi moom moo ko waral wante sax juróom-ñetti fan ci weeru mars dafa nekk loo xam ne dafa am taarix ci wàllu combat yi nga xam ne jigéen ñu ngi ko doon mëne loolu nag jëm ci moom seen bopp waaye tamit ñu gën leen jox gëdd loolu yéen bi sukkal jéem a ko fasal ci xëtam mu njëkk ci wàllu tàggat yaram ak présidence bu confédération africaine bu football Nouakchott nag dëggal na Rabat Sud Quotidien di ànd ci falam gi mu jiite confédération africaine bu football ndaxte kat ñett ñi doon xëccoo moom ñoom ñëpp nag fi mu toll dañoo dellu ginnaaw bàyyi ko rek moom mu jiite loolu ñu ngi ko fasaloon fële ci Rabat dëggal ko ci Mauritanie ci week-end nga xam ne moom la ñu génn ba tey ci yéeni kabi Sud Quotidien Abdoulaye Sow joxe xalaatam ci li tax Augustin Senghor ci jogante bi yéeni kabi di stade di ne match CP président Augustin premier vice président séddoo nañ nag gâteau bi fële ca Nouakchott loolu yéen kaab di sab moo ko fasal ci xëtam mu njëkk naataangooy di bind ne dinañ fal nag Patrice Motsepe fukki fan ak ñaar ci weeru mars su ko defee mu jiite confédération africaine bu football ligue africaine des champions troisième journée phase de poule yéen kaab di sat di fësal ni gannaaw bu mu amee ab défaite ak tamit ab match nul Teungueth FC dafa ñàkk nag samedi diggante ak ab Mouloudia benn bal ci dara fële ca compliqué wàllu qualification loolu nag laas moo ko bind te ngeen la yi jàngeen jëf ba la revue de la presse la revue de la presse sur Sud écoutez la différence bonjour à tous l'affaire Ousmane Sonko est le principal sujet développé dans les journaux ce lundi Le président de la République est l'unique détenteur des clés de la sortie de crise que traverse actuellement le Sénégal. La déclaration est de la directrice de l'Institut du genre et de la femme Fatou Sarsaou. de l'émission Objection hier sur Sud FM Sen Radio et reprise par Sud Quotidien, la sociologue pour une sortie de cette situation de la tension marquée par de violentes manifestations un peu partout à travers le pays a invité le chef de contrôle judiciaire, c'est le titre de Sud Quotidien. Mon confrère s'interroge, va-t-on vers un apaisement Tout porte à le croire. Selon les sources du journal, Ousmane Sonko sera placé sous contrôle judiciaire. Cinq gardes du corps et le caméraman libéré Sonko retenu par le mandat d'amener selon les échos. Contrairement à ce qui a été dit, ce ne sont que deux, mais six personnes arrêtées en même temps que Sonko qui sont libres. Il s'agit de cinq gardes du corps et du caméraman de Jotna TV. C'est le procureur de la République qui a pris la décision. En fait, Serine Bassirou s'est voulu légaliste. Les heures de garde à vue sont arrivées à terme seulement. Ousmane Sonko ne fait pas partie s'il a lui aussi bénéficié de sa levée, de émis par le doyen des juges Samba Sall qui le maintient entre les mains des forces de sécurité. Il doit répondre ce matin, ajoute mon confrère Macky Sall desserre l'étau. Titre LAS, le chef de l'État demande au procureur de lever la mesure de garde à vue retenue contre Ousmane Sonko. dans le cadre de l'affaire de trouble à l'ordre public et de participation à une manifestation non autorisée. En revanche, il n'a pas donné de gage à propos du dossier de viol. Par ailleurs, à propos des autres casseurs, le chef de l'État, Macky s'est montré ferme et dit avoir actionné la brigade antiterroriste pour identifier les pilleurs et les mettre hors de nuire. Ces décisions ont été prises après une médiation entreprise par les khalifs généraux menace Au-delà des émissaires des khalifes généraux, l'ancien président de la République, par ailleurs, secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, et le médiateur de la République, Maître Ali Badara se sont prononcés sur le sujet. Selon Sud le quotidien Libération s'arrête sur le désistement du juge du 8e cabinet. Trois faits ont eu le mars dernier dans le cadre du dossier judiciaire concernant Ousmane Sonko. 1. Le leader du parti PASTEF a été convoqué par le juge du 8e cabinet Mamoudou Seck. 2. Il a été arrêté en cours de déferment à la convocation sur ordre du procureur pour d'autres faits. 3. Le juge du 8e cabinet a inculpé Ndeye Khadindiaï il a entendu comme témoin son mari avant de retourner le dossier auprès du procureur alors qu'il avait programmé d'interroger dans le fond la propriétaire de Sweet Beauté ce 10 mars. Et si tout Toujours à propos de cette affaire Ousmane Sonko, manifestation tous azimuts, Macky sort la grosse artillerie, titre critique du chaos renchérit la tribune, un mort de plus à Diaobé. L'opposition appelle à manifester pendant trois jours à partir de ce lundi. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ont annoncé que les cours dans les écoles et établissements publics comme privés d'enseignement général, technique et professionnel, ainsi que les différents cycles sont suspendus du lundi mars au samedi 13 mars, selon Momodou Tala et Dame Diop. Cette décision a été prise dans le souci de protéger les élèves, les enseignants, l'administration scolaire des manifestations accompagnées de scènes de violence qui ont fortement perturbé le déroulement des enseignements apprentissage la semaine dernière, révèlent nos confrères de Libération. Ce 8 mars, les femmes du monde entier seront à l'honneur seulement. Pour la deuxième fois consécutive, la pandémie de Covid-19 aura eu raison tout en dictant sa loi des manifestations et autres festivités marquant la célébration de cette journée internationale de En atteste le thème choisi cette année, leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de Covid, selon Sud Quotidien. En sport, présidence de la Confédération africaine de football, Noirchot confirme Rabat. Selon Sud Quotidien, vendredi prochain, le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe sera élu par acclamation président de la Confédération africaine de football. Ces trois challengers qui ont trouvé un accord de principe à Rabat devant déboucher Le deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football a justifié le choix d'Augustin Senghor de renoncer à sa candidature pour la présidence de la Confédération africaine de football. Abdoulaye Seydou Sow a fait savoir que le Sénégal ne pouvait pas gagner cette élection du fait d'un manque de soutien de certaines puissances fédérales qui optent pour une union africaine du football. Mor Sépé, président, Senghor premier vice-président le partage du gâteau africain à Nouakchott et Cristal, selon mon confrère, le Sud-Africain sera élu par acclamation le 12 mars prochain au Maroc. Ligue africaine des champions, troisième journée des phases de poule, selon Stade, après une défaite et un match nul, Tenguet a perdu sur ses terres face au Mouloudia d'Alger 1 à 0, une défaite qui enfonce les Rifusquois. Tenguet se complique la tâche, selon l'AS. Tenguet surpris par le Mouloudia, écrit sur quotidien. Tenguet gris, le revue la revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Wolf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, L'Obs. La revue de la presse sur Sud FM, écoutez la différence.